ba marchandise mukk compte fay rek laay def ci ne lam def dañ ko teg ci loxo muy gule muy mag waaw duñ leen dig de Cheikh Moussa du digee mukk Cheikh Moussa du digee ne kuy digee da nga xamut te boo xamut boo digee doo fay waaye boo ñëwee ci loxo la lay teg boo ñëwee na nga war a ñëwee ci loxo teg nga gis waaw boo demee bu la jaralee nga dellu si bu jaralee sa morom mu topp la loolu noonu laay liggéeyee de Cheikh Moussa liggéeyam daal loo loo dégg coow li rek jooni jooni bi moo tax te liggéey bu du jooni jooni rek wóoru waaw yéen góorgóorlu te ki ngeen topp nii sëriñ bii moo doon loxol Cheikh Moussa de waaw moo doon loxol Cheikh Moussa de lu ngeen xut ci moom xam ko lu ngeen xut ci moom xam ko waaw fexe ba bu kenn nax boppam la waaw lu mu ne acca ah, lii rek na loola xam waaw na nga ca ñaq boo ñaqee rek moo cee a ñaq waa nga yóbbaale waaw la mooy la géej mooy la géej waaw